laay bu askan bi dañ lay bàyyi nga daal di nuyu mais laay namoon nañ la ñu bàyyi la nga nuyoo pare ñu doog ko ci waxtaan bi. <laughs> waaw salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal di nuyu àdduna yëpp di wax ma ne maa leen raw namoon naa leen ah, di am kontante ak mbégte war a mën a jàkkaarloo waa rek askanu àdduna ak askanu Sénégal jaajëf. waaw jaajëf mais mais mais grand ñu gis nii euh, tu as mis beaucoup de temps fu nga nekkoon lu xew. bon c'est un peu normal ah parce que suñu suñu diwaan bi dafa metti déjà pour nga defi musique c'est tout un problème da ngay nekk ci benn affaire di daw daw yoo xam ne bul comprendre te bon dara dara toppul ci ginnaaw donc pratiquement lépp yaa koy defal sa bopp c'est c'est très compliqué mais maa ngi woon ci liggéey bi maa ngi woon ci liggéey bi en plus aussi benn instant xawoon naa tawat mais yàlla def na si jàmm maa ngi si maa ngi maa ngi alhamdulilah bu baax a voilà instant yi daal boom job waaw job waaw. ci ci ci ci job boobu la ñuy ñëw ah ci job boobu la ñuy ñëw ñu gis ni yaa ngi indi benn benn affaire boo xam ne amoon na muy askan wi. Hmm. album askan wi dikkaat na ñu gis ni pendant tout ce temps ba pare da nga ko tëggaat. mais balaa ñu ñëw ci clip yeeg yooyu ñu gis ni te déjà clip bi moom moo nekk di daw nii. Hmm. mais ñu gis ni ni nga ko defaraatee ak ni nga ko kii mais pendant tout ce temps lépp rek mu nekkoon ci cadre liggéey mais Alaye pourquoi instant bi askan wi encore.

mu intéressé sénégal yépp ñu jël ko moomal ko seen bopp donc mu am buzz nag bu nganda bu mu defoon ndeysaan euh, ma ci profito di jaale sidi lamine di ko jaale waa sénégal yépp di ko jaale waa nak ndax euh, mën naa wax ne askan wi bu tolloo ci benn dimension grâce à wal fajri la ndax ñoom dañ ci bayoon seen waar ba mu mat sëkk xam nga mais le li tax ñu liggéeyaat ko indiwaat ko mooy que ne dama jàpp ne élection bu jot way boobu lañ ko war a indiwaat. mënoon mhm. nañ ne soxlawul ñu koy woyaat ndax way bi ilaa yow mi diini du dee. Mhm. parce que ku ñëw concerné na la mhm. góor gu fi ñëw rek am nga ci wàll. ndax li ñuy wax mooy liggéey leen te bàyyi coow li. def naa loolu moom jeexal na wax. waaw mais dañu bëgg di ko indiwaat. élection bu nekk di rappeler. di ndax dafa comme dañ nek ci rew yo xamantene euh, sama dañu a dañuy Ils dugg ci ben affaire rek donc nga ah, on est toujours là bu ñu wax bu léré ñu wax bu baxé ñu wax bu boné ñu wax donc yenn quoi pourquoi allait clip bi clip bon ko waaw ni ko clip bi ak clip clip ñu top la ba ndindi fee la mm-hmm. lu tax choix boobu nga dem ba fi Sénégal dama naan jéxé commencé fa ndaw di ñew waaw loolu tamit lu lu am solo la lu am solo la parce que euh, mën nañ ko tënk ci ay ay ay format yu bari ah mën nañ ko xalaat ci format yu bari ne lii ak lii moo tax mm-hmm. mais en premier dañuy wax ne que déjà bu fekkee ne quelque chose ne va pas yow mi nga xamante ne yaa toog naan ça ne va pas ça ne va pas rek yaakaar naa ne san du du gaaw a baax waaw ça ne va pas ça va pas du gaaw a baax waaw li gën mooy nga jóg dox ay jéego pour que ça ne va pas boobu am benn aboutissement ci dara même su fekkee réglé wul lépp sax mais mu am au moins tuuti tuuti loo xamante ne bougé na quoi donc yow mi jàpp ne tey daal affaire bi doxul nga jóg daw ak say tànk wala nga jóg dox ak say tànk dem uti leneen wala doxi leneen dina la permettre nga nekk ci yeneen dimension déjà benn la loolu ci lu tax ñu dem ba ndindi feloo jëlee ko fofu di daw ak mom di ñëw. deuxième bi moy la tok fi rek ñun ñëpp concentré wu ci Dakar hein que ça soit muy musicien yëpp defe na ñom pour ñom suñu bougé buñu buñu bu Dakar def li ñuy def rek ça va quoi. bon on s'est dit que ne comme askan wi la. comme dañ may woowee la voix des sans voix. mané ne ah xaaral ma dem ci askan yi. génn Dakar dem ba ci ñom ba xam. ñu gis ma déglu morceau bi xamné aussi. politiciens yi la fait que ñoom ñu am possibilité déplacé wu dem ba fu sori def seen i campagne wala moo xam comme ni ma koy waxee ci biir way bi bu élection jotee ñu tàmbalee dem ci gox-goxaan yi jéem a xool nu ñu naxee askan wi waaw ñu wan leen ne ñun nag am nañ possibilité dem tamit ba ci askan yooyu waxtaan ak ñoom xamal leen que ne li wóor ba wóor mooy lenn kese carte bi mooy fal mooy folli amul lenn luñ leen mën a wax loo xamante ne mooy euh, lu wuteeg loolu carte bi mooy fal mooy folli ku fi ñëw wax leen leneen lu loolu waxu leen lu am donc bàyyi leen xel ki ne Sénégal gii ñun ñoo ko moom liggéey rek moo am solo kii liggéey nag moom yàlla rek a xam mais en tout cas ku ñu wan possibilité boo xamante ñu gëm la ah dañ lay sànnee suñu carte ba xam nag fu wànnati di mujjee ak ay gëtam. d'accord voilà dañ lay sànnee suñu carte mais euh, Alay ñu gis ni macha allah sa voix ak ni mu mel ak mën way bi nekk ci yow ñu gis ni boobu ba tey du ñu tojoo ah c'est vrai que yaa ngi toj mais lu tax langue musique bi gisuñu la ci carrément. ah loolu nag damay ñëwaat rek wax ne Sénégal moo nekk dëkk bu metti moo nekk déjà dañ lay xaw a imposer style de musique bi ngay def. te yow bëggoo ñu la imposer. non man dama libre. man musique lay def en général. est-ce que ni liberté boobu moo tax tey doxoo ni nga war a doxee. mën na nekk ah mën na nekk parce que proposé nañ ma ah, am na ñu moom ne yow gars yi daaxuñu la way ñëwal ñu defal la lii ak lii nga buuxante gars yi man maa ne non bàyyil ma nekk ci li ma nekk rek parce que nit ki tamit li nga nekk nekk ci te gëm ko c'est vrai que mën na yàgg mais yow boo gëmee li ngay def un bon jour di nga gis le bout du tunnel boo ko gisee boobaa dinañ xam ne waa ji la mu toogoon di ko laxatu ah jar na ko te gëm naa ne lii ñu togg di ko waaj indi ah dina tukkal jamono de li gars yi di wax. d'accord xam nga dañu nekk ci askan yi balaa dafa koy tëj daal di jàll ci beneen morceau boo xam ni temps yi mi ngi mi ngi lëmbee réew mi te gaa yi comprendre ñu. Hmm. te xamaguñu exact sax kan moo ko way mais gars yi ngi koy fooy. mais bu balaa ñu tëj askan wi rek tey message bi nga am exemple pour sa album bi ak clip bi est-ce que clip bi instant bi joxe nga ko. non pour le moment joxe guñ ko. normalement je pense que. ouais mon ngi mu ngi daw mais normalement euh, office sortie officielle je pense que le 17 lañ ko le 17 décembre. oui, bii nii waaw. donc Inch'Allah, allah le la ko bëgg fait lancer dans le média yi ñëpp jot ci quoi. il paraît aussi a ngi waajal ben concert Mbour. wow wow ñu ngi une ngi waajal benn affaire au Somone parce que pratiquement Somone li waral Somone sax il faut ñu wax parce que Somone fait foofu lañ liggéey affaire yëpp. Euh, voilà faut la label bi nekk. Pascal muy benn tubaab boo xamante ne ñu ngi bokk di liggéey donc moom fa la basé wu. donc si am la ñu joobee affaire yëpp. donc moo tax ñu ne bon avant tout nañu def foofu benn affaire ba pare waaw. Pascal euh, Podor ñu koy wax. production moom moo def clip beeg moom moo def yëpp ah. waaw waaw waaw waaw moom moo def euh, euh, nan laa koy waxee réalisation mais yow yow yow yaa nekk ci ginnaaw réalisation bi yow Moussa <laughs> yow yaa nekk ci bagage yi. <laughs> <laughs> mais concept bi moom la quoi Pascal Podor donc macha allah am na xalaat yu naa yu ñu def te.

mais Alaï vraiment ça, ça, ça nous fait toujours plaisir tu hein. te vraiment après euh, somon ñun on te promet ñun waa Sénégal TV dañ fa ñëw ah dañ fa ñëw fekkee ko def ko en direct aussi mu nekk live boo xam vraiment de nous intéressé mais ñu gis ni album nga préparé du askan bi kese. c'est vrai que nag askan bi moo génn instant bi mhm. mais il y a combien de titres sur l'album. bon onze titres moo askan wi ñoo ma y'a jafe y'a yi ñu زيت له قد مداوي البلد